bonsoir salaamaaleykum mbokku déglukatu réew Rewmi FM dal leen ak jàmm ci seen euh, émission sans filtre euh, di jotaay ndaw ñi fii ci réew mi FM lay am mercredi bu jot 15 jàpp 16h tey ñu dalal Omar Sow Diagne. enseignant le chercheur traducteur de langue wolof li ñu fi fas yéene waxtaanee moo di l'implication des langues locales euh, dans le système éducatif maanaam nu ñu war a mën a def rek ba dugal euh, langue yi nga xam ne ñun moom la ñu nàmp ci biir école bi euh, ku ci bëgg ànd ak ñun rek numéro yi wax nañ ko 88 628 84 nga bës wala 88 628 nga bës wala 88 688 ci biir bitim réew la 33 841 21 40 Mor Fall yaa ngi ci plateau bi ma bàyyi la nga nuyoonteeg mbokk déglukat yi balaa ñuy dalal gan. voilà Sylvie maa ngi lay nuyu di nuyu euh, ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi déglu réew mi FM donc leen jaajëfal di leen euh, jox seen wàccuwaay saa su nekk ñoom ñi teewlu émission euh, Espace comme ni ñu koy defee saa su nekk chaque mercredi 15h ba 16 mm-hmm. donc di dalal suñu invité tey ñu waxtaanee ponk yu bëree bëri bëri yu am solo yu ñeel wàllu langue.

réew mi dafa waxoon ne li nga xamante ne mooy passeport yi ñu koy joxee euh, jaarul ci yoon ba tax na dañuy changer format bi changer kii def ko genre yoo xamante ne day nekk yoo xamante ni c'est sécurisé ba kenn du ko mën a du ko mën a def ay fraude yu ni mel mais à notre grande surprise ñu gis jamono jee passé ay coo yoo xamante ni amoon na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci mouvement Y'en a marre ñu am mm-hmm. kenn ku ci doon ne doon def euh, trafic passeport mais boobu ba léegi kenn euh, firndiwul woon ne li nga xamante ne mooy ay passeport diplomatique la fan yi nag mbir mi ëpp loxo ba nga xamante ne ñu dem sax mhm. ba ci tudd ñi nga xamante ne ñoom ñooy libéral yi muy waa PDS te ku ne libéral sax xel day dem ci ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Wade Macky Sall aussi bokk ci ñi nga xamante ne ñooy ay libéral donc passeport diplomatique bokk ci passeport yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk passeport yi gën a mag ci biir yi nga xamante ne mën nañu wax ne nekkul n'importe qui moo ko war a mën am jamono ji nga xamante ne président Macky Sall mi ngi doon wax ne dañuy bañ li nga xamante ne moom mooy ñu euh, di fraude yenn document yu ci mel ne passeport diplomatique donc dafa demoon ba nga xamante ku nekk da koy yor eh, ci kilifa diine yi eh, ku ci nekk da nga ko yor eh, ku tëb rek yor li nga xamante moom mooy wàllu passeport yooyu donc nag bu ñu demee ba nga xamante fi mu nekk nii mi ngi entaché li nga xamante ni moom mooy deru ci yenn si wàllu diplomatie parce que mm-hmm. document boobu nga xamante ni moom mooy permettre ki nga xamante ni moom diplomate la yor passeport boobu ko kenn du xool ay bagages am kenn du ko fouillé mm-hmm. donc bu mu demee ba n'importe qui di di di am papier boobu ci ay moyen ay ay ay yoo xamante ñi na yàq suñu relation diplomatique. ak yeneen non ko was na ko yàq parce que mhm. Italie dañ ngeen fan yi passé ñi ngi ñi ngi ñu ouvrir ñoom benn enquête boo xamante ni euh, ci ñenn ñoo xamante ni ay mhm. mhm. euh, biir réew moom je pense que responsabilité boobu sénégalais ñoo ko yor donc président Macky ba mu fi toog ba mu waxee ne dañuy sécuriser yooyu yooyu passeport je pense que dañ ko waroon na daal di def mu nekk loo xamante ne du am benn benn euh, xaarma yàlla mais xaarma yàlla bi ci leen lañ xam mooy ñi nga xamante ñoom ñooy kenn jëfewu ñi nga xam ñoo koy def sax ci moom lañ bokk muy waa benn bokk yaakaar mhm. ba fi mu nekk ni am na information bi génn ñu ne am na ay chambre de luxe yoo xamante ne moom mooy pour euh, yi nekk biir rëbës ñu ngi koy réfectionné lu toll ci six ci ñenn ñoo xamante ne ay ay euh, député yoo xamante ne dañ leen tudd ci mbir mi ñi ngi def réfectionné yooyu chambre pour xaar leen bu ñëwee ñu téye leen kon cela kon mais ca wet ga am na ñuy def seen kéem tu lay kattan pour pour bañ a am seen immunité parlementaire hmm. mën leen juger mais bu amul bu amul. parce que mën na sulli yeneen affaire ci biir. Euh, mais loolu foog mu am bu amul day andi scandale bu mag si mi parce que hmm. gis nañ ñenn ñoo xamante ne si ñoom lañ bokk muy waa benn bokk yaakaar def fi hmm. ay mbir yu yu ne weng. la la ba mbir wax ci kenn waxatu ci ci mel ne Bougazelli ak ñeneen ak ñeneen. donc bii ce n'est ay affaire de ay benn bokk yaakaar lu mel mais affaire diplomatie deru Sénégal moom moo ci dara yàqu. buñ bàyyi mu jàll. bu yeboo ñu xam ne kon fi mu nekk nii euh, lu ci mënti am. Mhm. ci kanam ci wàllu diplomatie bu ñu demee ba yéen dëkk yi ñu ne euh, képp ku jógee Sénégal même boo yoroon sax passeport boo xamante ni. président Macky Sall moom moo ko signé wala moo joxe ordre ordre mhm. dëkk boobu ne ni ko dugg ci biir dëkkam mhm. boobaa nañ jël responsabilité xam ne njiitum réew mi am na ci li nga xamante ne moom mooy dogal mais ministre bi nga xamante ne mooy wàllu affaires étrangères aussi am na ci mais ñi nga xamante ne aussi ñoom ñooy signé yooyu papier président Macky aussi moo am lu ñu mais ñi nga xamante ne ñooy signé papier parce que nit ki du fraude rek mm-hmm. ñëw ne la sama diw laa bëgg nga defaral ko ku ci mel ñoom kilifa bi nga xamante ne jamono ji euh, man dama naan sax carton rouge laa koy jox ñi ma jox leen ay carton parce que mm-hmm. euh, dafa dem ba nga xam ne fi nekk nii Sénégal xamatuñu kan la gëm xamatuñu kan la neexal ñi ci laal ñëpp ñi ci laal ñëpp nañ leen tëj ci kaso bi loolu ñu wax nañ koy préparé daal xam nga six nañ ko def ba quinze te xam ne bu bu dina ëpp six yi nga xamante ne laal nañ leen muy waa benn bokk mm-hmm. yaakaar même fekkee sax am na ministre bu ci laal sax nañ ko jàpp ne ko ràpp ci kaso bi ba mu xam ne fi mu nekk ni Macky Sall euh, PDS ku ci mënta nekk moomu ñu réew mi dëkk bi Sénégalais yee ko leen leer na de investigation bu wéyee xam naa ca pale ba la ñu jëm sax. ah mais bu mais bu jëree moom ñoom yóbbu si réew mi ñu ko sax Omar Sow Diagne <laughs> enseignant la uh-huh. chercheur traducteur langue wolof. Uh-huh. ak professeur itam ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu plateau ñu bàyyi la nga nuyu euh, mbokk auditeur yi lay déglu. Euh, jërëjëf euh, soxna Sylvie Imam Mor ñu ngi leen di ziar bu baax. Mm-hmm. di leen nuyu di nuyu auditeurs Rewmi FM yëpp. rafet lu tamit euh, dalal bi ngeen ñu dalal tey fii ci rajo bi. Mhm. ngir waxtaanee loo xam ne tamit yaakaar naa lu am solo la lu xam ne yitteel na askan wi yëpp itam. Mhm. waaw ñu bàyyi la rek nga joxe sa xalaat ci euh, scandale bi nga xam ne moo éclaboussé assemblée nationale. Mhm. ak euh, mouvement Y en ah waaw xam nga boo waxee diplomatie. diplomatie wolof moom lay wax laamiso. ngir tegaale tànk ci li ñu bëgg a waxtaanee. Euh, passeport diplomatique yi maanaam jàll waax yi euh, boo nee diplomatie rek mooy koo xam ne bu buñ ko tappalee étiquette boobu rek mooy maanaam fépp fu mu dem mën naa jëfal waa réew moomu. Mm-hmm. xam nga loolu dafa doy waar loolu dafa nekk lu am solo. Mm-hmm. léegi nag lu am solo bés bu demee bañ soofantal ko rek ba nga xam ne ku ko gis doo dootootu ko gëmati rek mooy réew moom mu ngi ci guuta gu rëy. Mm-hmm. nekkul ne daf ciy waaj a dugg mooy sori na ca. ndax loolu bokk na ci maanaam ruq yi nga xam ne gën naa sori ci nga xam ne yàqu-yàqu ba fala la fa war a yegg hmm. léegi nag yu mel noonu bu amee a ah, man day waa nguur gi rek laay joxoñ tuuma ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ñoom ñooy jëwri ñi nga xam ne ñoom ñooy xaatim hmm. këyit yooyu hmm. ndax par passeport diplomatique lu ci mel ni assemblée national maanaam député xam nga député yi askan wi ñoo leen fal ngir ñu lijjanti problème askan yi man dama gisul sax lu ñuy doyee passeport diplomatique fan la ñu jëm di dem bitim réew naan dañ fay waxal askanu Sénégal te ñu am ministère des affaires étrangères ñu am direction des sénégalais de l'extérieur moom député mi nga xam ne waa réew mi képp ñoom ñoo ko fal pour mu la gox boobu noonu département boobu hmm. lan lay wuti bitim réew bañ koy jox passeport diplomatique dëgg naa dëgg moom ndax man daf ma cee gën a yey man mii di hmm. jàngalekat hmm. war a dem uti xam-xam fu nekk ñëw di ko joxe maa ko ci gën a yey ma kon maanaam yii bu melee nii daf ñu war a gën a yeewaat ñu xoolaat tamit euh, kayit yu mel noonu naka lañ koy joxe ak kan moo ci gën a yey mhm. ñu jox ko ña ko war a yey te ku ciy def tamit loo xam ne naka sudul noonu la ba mu leer ba lu ñu tuggi wane ne kii li mu def du noonu mhm. ah dañ ko war a teg daan yoo xam ne nag mérité na ko mhm. daan yu am solo bañ xam ne maanaam réewum dë réewum ñëpp daal kenn du ko fooyee lu ñëpp bokk daal nañ ko teg ci yoon rek am na solo balaa ñuy dugg ci thème bi am na ay sujet d'actualité yoo xam ne jamono ji ñëpp a ngi koy wax ñeel euh, njàng beeg njàngale mi euh, maanaam euh, vaccination yi école bi léegi mu ubbi dans presque quelques semaines tey mooy le quinze je pense que le onze la enseignant yi di ubbi le quatorze la élèves yi di ubbi donc li ci des matatul benn weer tey nguur gi di sàkku enseignant yi ñu dem ñàkku ji yow ngay jàngalekat ban jàngat nga ci am fuy sa taxawaay Euh, waaw waaw waaw nekk na coow loo xam ne jamono ji mu ngi yëngal na enseignants yi yëngal nañu ñu bëri. Mm-hmm. waaye dama yaakaar rek ne xam nga Sénégal jàngalekat yi dama yaakaar ne dañoo nekk doomu bàjjanu ñëpp ndax boo nekkee nguur nekk kilifa nga njabootee ñëpp booy wax dangay wax pour sa njaboot yëpp. Mm-hmm. militaires yi si njabootu enseignants yi lañ bokk. si njabootu jiitum réew mi lañ bokk. di ay fonctionnaires. Mm-hmm. ñi nekk si administration sénégalaise yëpp. si administration yëpp di ay fonctionnaire kon li gënoon nekk xel nit ku yeewu. Mm-hmm. dafa waroon wax fonctionnaire yëpp dañuy dem ñàkku ji. Mm-hmm. bu la neexee nag sax après bu fekkee xaw ngaa yeewu tuuti nga ne ah comme jàngalekat yi yéen yéen a gën a jege. Mm-hmm. ah kon boo leen tàmbali woon mu gën. waaye boo tëbee rek ne jàngalekat yi dem leen ñàkku dafa am lu muy niru ndax du du lu bees. lu ñuy xëy rek joxoñ baaraamu tuuma jàngalekat ne defal nangam wala defal nangam. wàllum ñàkku yi nag ginnaaw. nguur gi ñoom nangu nañ ne amagul loo xam ne matal na sénégalais yëpp dañoo war a bàyyi nit ñi ñu ànd ak seen liberté. Mhm. ñi ko war a def mën koo def bëgg koo def ñu dem defi ko ba keroog ñuy am loo xam ne matale na ñëpp bu fekkee dañ koy imposer dañ koy teg daan na ñëpp dañoo war a ñàkku ñu yóbbu ko fañ ko war a yóbbu ñëpp ñàkku waaye fileeg loolu kayit bu koy firndeel amagul amul benn lenn rek luy may nguur mu ne ñii dañuy dem ñàkku ji ngir mën a def seen liggéey. te ñeneen ñi nekk ci dëkk bi di liggéey seen liggéey te ñàkkuwuñ dafa yenuwul maanaam dafa yenuwul maanaam. Mhm. waxuma ne nag enseignants yi dañoo bañ a ñàkku. Mhm. ndax ñi ci ñàkku bari nañ. ñu bàyyi ku nekk ak sagoom. mooy xool ndax dina ñàkk wala du ñàkk waaw. ndax voilà donte ñàkk yi mhm. sax doyul. mu ngoog donte ñàkk yi doyul. donte ñàkk yi doyul nañ bàyyi ku nekk ak sagoom mu ñàkku. dëgg la euh, ñu dem si tenue yi nga xam ne nguur gi trente millions. Euh, la daal di génnee rek bëgg ko def ci euh, tenue yi. ci tenue yi. waaw <laughs> xam nga loolu moom ca wet ga euh, étudiants yi ñu ngi ñu orienté dans le privé. kenn mm-hmm. fayul dette bi nga xam ne moom la ameel yenn kii parce que mm-hmm. dàq nañ leen. Mm-hmm. ñi ci mujj mooy Thiès rek am na ñoo xam ne benn école de santé lañ nekk ñoom tamit dàq nañ leen de cent cinquante étudiants. yoo xam ne dàq nañ leen. waaw xam nga loolu moom dafay wane rek euh, maanaam ñàkk xam priorité ñàkk xam priorité rek lay wane. ndax boo jëlee lu toll ci xaalis bu xaalis bu toll noonu si ak njàngale njàngale fi mu nekk jamono jii nii nga ne yaa ngi koy def ci tënu dama yaakaar ne ñàkk vision la. Mhm. ndax am na yoo xam ne ñoo gën a jàmp fuuf te kenn laalu ko léegi nag. boo ko ŋàññee nit ñi dañ naan war a ko woon ndax tenue dafa nekk lu am solo quand même. ci mhm. espace scolaire. Mhm. ndax dañ koy def tenue boo gisaan ñu koy def dañ koy def pour mën a réduire lee disparités sociales mhm. maanaam duñ xam ku am ak ku amul kon maanaam idée bi lu rafet la mhm. waaye boobu léegi Sénégal nit ñaa ngi jàngi ñii ya ngi sol ñii ya ngi solul waaye nit dafa am li ñuy wax l'essentiel am l'accessoire tenue bi naam lu baax a baax la waaye lu ci mel ni abri provisoire lu ci mel ni dette bi nga xam ne ameel nañ ko école privée lu ci mel ni dette bi nga xam ne amee nañ ko enseignant yu public bi si boppam. Mhm. donc yooyu noonu yëpp dafa nekk école yi nga xam ne tey si contexte sanitaire bu bu bu bu bu particulier bi ñu nekk école yoo xam ne amuñu ndox. les écoles manquent de tout écoles yi nga xam ne ndox maa ngi fa fees del jamono jii may wax ak yow ak lépp li nga xam ne dafa war a nekk ay intrants pédagogiques matériels yoo xam ne dafa waroon nekk ci école nekku fa. ñu war cee dox doxuñ ci nga jël somme bu toll noonu tey jii ne da koy def ci ay tenue scolaire dafay paradoxe la nit ñi mu xel mënu koo jàpp ñaareel bi mooy ah somme boobu moom naka lañ koy doxale kan lañ koy jox kan mooy gagné marché bi kan moo koy saytu fan la ñuy dugal xaalis bi tenue yi ñaata lay jar. Mm-hmm. yooyu noonu yëpp ay problème yoo xam ne kenn waxu si dañoo wax xaalis bu bëri rek ne ñu ngi koy def ci tenue yi. kan moo koy lijjanti ñun question bu jar laaj la <laughs> merci beaucoup euh, léegi dañuy dugg ci thème wala moo fa da nga am benn question ñeel actualité. non nañ continuer waaw mun nañ dugg ci thème bi maanaam tey euh, nu ñuy def nak lañu war a mën a def parce que projet la woon. Mhm. nguur gi je pense que euh, mu ngi ko doon lam-laame mu doon ak projet ñu mhm. bëgg a suñuy langue locale ci biir njàng mi mhm. mais mu nekk ba léegi loo xam ne mu mujjugul antu. Euh, te tey gis nañ niveau élèves yi ni mu baissé. Mhm. baissé na ba jéggi dayoo la preuve rek examen yi bu ñëwee mhm. résultat yi c'est catastrophique. Mhm. tey euh, professeur ndax jàppoon ni tey bu ñu dugaloon langue locale yi. Mm projet boobu nga xam ne nguur gi depuis Mathusalem ñu ngi ko ne ñu ngi koy mhm. laam-laame mais ba léegi mënagul mhm. commencé tey bu ñu ko dugaloon euh, du tax ba améliorer niveau élève wala sax est-ce que du euh, tax ba xale yi yàlla xiir leen ci jàng parce que. Mm bi nga xam ne seen langue locale la loolu la ñuy wax seen biir kër yi moom la ñuy jàng duñ ci mhm. gën a sawar. waaw euh, laaj nga laaj bu ama am am solo. boo xam ne wax dëgg neex yàlla euh, daanaka dama la ci jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ci li nga amee xalaat jël thème bu mel nii teg ko ci espace public bi. Mm. ndax euh, école ci boppam ci am réew bu ko am réew di samp daf ciy am ay gis-gis yu leer am ci ay objectifs yu clair ne man dey sama école bii tey doomu Sénégal yi saa Sénégal yi war fee jàngee dama bëgg ëllëg. saa Sénégal bi mel nii ak nii ak nii dëppoo ak lu jëm xam mbooram bu baax mboor mooy histoire xam mbatitam xam culture am bu baax xam moom mooy kan saa Sénégal bi ñu bëgg mu mel nii la war a mel mm-hmm. école bu ñu koy samp sim réew loolooy tax ñu koy samp waaye ñun nag yàlla dafa def euh, école dafa yàgg Sénégal plus de deux cents ans mm-hmm. colonisateurs yi indi woon ko fi mm-hmm. ñoom nag bañ demee jël seeni bagage dem ba léegi Sénégal toogaatuñ ñu ne suñ école bi dañ koy tëgg tëggin boo xam ne tëgginu senegal bi moom boppam la. Mhm. loolu nag moo ñu topp ba léegi. léegi nag jamono day dox nit ñi dañuy gën a yeewu. Mhm. limites yi di feeñ. ñu xam ne njàng mañ daan njàng ñiñ ko daan jàngal li ñu bëggoon ci ñoom mooy ñu doon ay tubaab yu ndaw. te ñoom loolu nekkul loo xam ne sax dañu ko doon liyaar dañ koo wax bind ko mu leer nañ. ku ci mel ni la Delafosse bii nga xam ne moom lañ tuddee suñu lycée bu mag bii lim ci wax dafa sax ñaaw mhm. maanaam daf na ñoom sénégalais bi nga xam ne moom la ñuy former ci école bii ñu fi nekk nekk fi ba léegi. Mm-hmm. dañoo bëgg koo xam ne dafay bokk si ñoom ndax culture bi. Mm-hmm. ba pare bokk si ñun ndax juddu bi kott. maanaam na juddoo Sénégal rek ñu xam ne Sénégal ñu koy xool naan mm-hmm. kii de si ñun la bokk. waaye ci biir lépp ci moom dañ koy raxas génne ko solal ko. mbatitu tubaab. ñoom dañ ne loolu la ñu bëggoon ci école bi. ñu koy doxal. doxal nañ ko ba dem ñun ñu continuer di def loolu. loolu xel ni xel yenn maanaa nga yaakaar loolu nag moo ñu topp ba léegi. Mm. léegi nag nit ñaa ngi yeewu gis ne tey jii français bi sonal na xale yaa ngi koy wax niveau bi. Mm. Mm-hmm. nekkul ne moom rek moo tax niveau bi wàcc nag. loolu mm-hmm. fow ñu leeral ko tamit waaw waaw. waaw waaye gis nañ ne ñun man si sama xalaatu bopp. frein la en fait. frein la. Mm-hmm. ndax jàngee làkku jàmbur rek dafa am maanaam yu bari yoo xam ne daf koy damm ci xale bi nga xam ne mooy tàmbalee jàng. xam nga tey jii bu ma jëlee mis euh, niral bu mel ne wañ wàññi. Mhm. yow tey booy wàññi ci wolof da ngay wax benn. Mhm. ñaar mhm. ñett ñeent juróom. nga ne juróom benn. donc mu ngay compter sur la base de cinq de juróom. yow boo duggee école rek dañu lay wax loolu baaxul. ne dañuy wax un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix. xale bi dafa am lu muy damm ci moom. loolu la ñuy wax la construction identitaire. dafay am lu muy damm ci moom te moo ne compter tubaab moo gën a doy waar fop ndax da ngay dem ba cinquante ne soixante ne soixante ak dix ñëw ne quatre ne vingt ne dix lu muy tekki loolu. wolof a gën a yenu maanaa da nga juróom ne juróom benn boo demee ne fukk ne fukk ak benn fukk ak juróom ñaar fukk dem ba téeméer mais boo ñëwee loolu dañ koy damm ci xale bi léegi nag làkk véhicule culture la loolu français ñoom dañ ko xam. Mm-hmm. moo tax ñu samp ko fi. ñun nag véhicule culturel boobu duñ ko am ci wàllu éducation ci wàllu jàng dafa am lu ñuy wax la capital culturel le capital culturel mooy li nga xam ne xale bi daf koy jëlee këram indaale ko école tey jii yow sa doom ji ngay làkk français sa kër mhm. bu ñëwee ak sama doom ji nga xam ne wolof rek laa koy làkk sama kër mhm. ñoom ñaar bu ñu leen dugalee école sénégalaise bi ñu fay jàngee français rek mhm. équité amatu fa tolloolee amatu fa ndax que le capital culturel bu ñu indaale kii di ko indaale léegi nag ñu jàpp ne nag wax dëgg yàlla fii si Sénégal réew mu mel ni Sénégal xale yi bu ñu doon ñëw ku nekk waroon a mën di indi capital culturel am ñu valoriser ko ci réew moom ñoom dofu ñoom bu ma waxee ñoom mooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk jàng beeg njàngale bi mhm. dem nañ ba jamono jamono yi weesu ñu dugaloon fi programme bu tudd lecture pour tous lecture pour tous boobu dañ ko basé woon ci langue nationale yi maanaam boo demee si euh, gox boo xam ne séeréer yi ñoo fa ëpp mhm. dañuy jàngale xale bi di jëfandikoo langue séeréer ba xale yi miin son yi miin araf yi miin lépp ñu soog leen jàllale ci français bi mais moonte loolu def na ay résultats de loolu rek daf ñu waroon yee ñun nag ñu am chance am benn làkk bu ñuy wax wolof au-delà de ni mm-hmm. mu nekk làkk boo xam ne buñ koy qualifier dañuy wax c'est une langue vernaculaire mm-hmm. mooy maanaam réew mi yëpp a ko bokk plus de quatre-vingt pour cent sénégalais yi dégg ko ñëpp a ko dégg ñu mm-hmm. codifier ko depuis cent soixante-dix mu gànjaru maanaam mooy mu mu nekk làkk wu riche. Mhm. ma ne ñun lan moo ñu teree suñu làkk woowu ñu koy jàngee boo ko waxee ñu indil la ñetti opposition mooy pourquoi ñuy jàngee wolof lu tax ñuy jàngee wolof duñ jàng ci pël. tontu bi mooy li ma wax léegi. Mhm. làkk boo xam ne daanaka ñëpp dégg nañ ko. kon kay jarul ngay sonlaat sa bopp boobu ngay jël rek wéyal ko ni ñëpp. Mhm. français bi ñëpp dégguñ ko juddoowu fi sax. te indi nañ ko fi ci réew moo xam ne cinquante cinq pour cent de la population. ay analphabète la analphabète la dégguñu français. ñu jël suñu école yi ñu ne français lañ ci jàngee te loolu sax dafa sori. maanaam wolof si boppam. yaa ngi ma ko doon wax sànq balaa nga koy jàng dem ba université pulaar balaa nga koy jàng dem ba université lu tax duñ jàngale wolof buñ demee suñu école yi daara yu diggu doom yi ñu mën fa jàngale allemand mën fa jàngale russe ak yu kenn xamul. ñu ne duñ fa jàngale wolof. minimum syndical mooy xale yi mën a sax liir mën a fañ jaarale français bi ba mu nekk une langue officielle. Hmm. bu ñu fa jaarale woon olof bi nekk na ko bu yàgg te nit ñi danañ ci gën a mën a jàng. dëgg la te boo demee université sax matière facultative lay doon. Euh, kon tey nga foog ne tey buñ doon dugal. Mhm. bu dee tey jugoon nañ taxaw bay dugal langue locale yi ci biir euh, école bi. Mhm. Euh, duñ ko commencer dès l'école primaire. parce que mhm. xale. moo gën a mën a capter ay langues. am na études yu ne xale mën na capter jusqu'à quatre langues. tey buñ jëloon olof bi par exemple di ko jàngal xale bi. léegi français beeg anglais beeg espagnol bi bépp buy langue étrangère. mu ñëw après nga doon gënul doon yomb ci xale bi mu capter. Mhm. quatre langues yooyu yëpp tout en maîtrisant le wolof. Mhm. jàng ci. ja ci lay gën a yomb ci lay gën a yomb ci lay gën a gaaw. Mhm. ndax làkk làkk yi yemuñ gaa waaye boo xësee ba maîtriser benn làkk surtout bu nekkee làkk boo xam ne da nga koo jàng. yow da ngay am ubbeeku si wàllum jàng làkk beneen bu ñëwee du du jafe te niral yi dafay yomb mooy maanaam exemple yi ñu lay jox dafay yomb étude comparée li ñu koy wax dafay yomb ci yow te xale yi. li leen gën a jege ñu koy pratiquer moo gën a yomb si ñoom ñu jàpp ko waxuma la làkk bi rek mais xam-xam yu élémentaire lu ci mel ni màndaxe mathématique ak yu mel noonu am na kuréel gu kuréel gu mag gu nekk fii Sénégal ñu koy oowee wax muy wax ak xamle ma leen di nuyuwaale bu baax. Mhm. ñu ngi def liggéey bu rëy rëy rëy rëy si wàllu wolof maanaam téere jumtukaay yi ñuy jàngee wolof si boppam ñoom yooyu romb nañ ko firi nañ ko ci wolof. ba mën a jàll xale bi jàngal ko ci jàngal ko ci wolof ñu jàngal ko mandaxe mathématique mu mokkal ko mën ko di ko def tey xale boo fa wax ñaar ak ñaar da lay wax ñeent la di mais pour mu xam loolu foog nga wax ko deux plus deux hmm. moom foog mu dem jàng tubaab ba ñu mën ko wax loolu mu koy soog a comprendre xale yi seen muus yaa ngi koy wax dañ koy naj ndax question bi ñu leen di posé loo sax pour ñu comprendre wul dañ leen koy wax ñu wax ko ci tubaab hmm. xale bi bu amee lu ko lënt mënu ko wax ci tubaab day noppi hmm. ndax rus naa wax ñu ree ko wala nangam nangam Cheikh Anta Diop dafa am benn benn niral bu ndaw bu mu ci joxe woon mu ne boo la waxee ne la ay tomb yu ñu toftal mu nekkub rëdd maanaam ay tomb boo leen jëlee toftale leen tegle leen day nekk rëdd maanaam un ensemble de point constitue une ligne boo ko waxee xale bu am trois ans defal ko ay tomb wan ko nii moo xam ne luy trait mais ñun pour ñu jàng ko foog nga def six ans foog nga am six dem école jàng làkk bi xam syntaxe bi xam vocabulaire bi pour ñu soog la jàngal lan mooy trait gis nga retard bi muy créer ci xale bi. Mhm. alors que mënoon na ko xam à ah, ñetti at. boo ko wanee ne ko lii rëdd bii ay ay tomb yu ñu toftale la rek da koy xam xale boo ko wax mu xam ko mais ñun foog nga dem bàyyi onze ans douze ans di ko soog a jàng. nga nekk sixième. nga nekk sixième gis nga retard bi muy créer ci xale yi léegi nag yow. defal calcul rek nga xool lépp li nga xam ne ay xam-xam yu nécessaire la tey jii buñ ne woon ñu ngi koy jàngal suñu xale yi ak seeni làkk yi hmm. kon romb nañ fi yàgg na léegi nag dugal ko ci école yi débat la ndax dama jàpp ne am na lu lu minimum syndical loo xam ne état war na ko def mooy ci li nga xam ne ay institution la li ñuy wax signalétique yi ak yi hmm. xanaa bu fekkee ne wolof bi fay nañ ay nit ñu xalaat ci gëstu ci ba codifier ko depuis plus de trente ans war nañ koo mën a jëfandikoo tey jii suñu maire yi nga xam ne ñu ngi ci diggu dëkk bi nekk ci àll bi jànguñu jànguñu français. Mm-hmm. buñ leen jàngalee tey jii ñu mën a liir mën a bind wolof. am na foo xam ne bu ñu fa yeggee soxlawuñu laajte tey Windows 10. Mm-hmm. logiciel bi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo. Mm-hmm. am na version wolof. nga mën a ñëw wàcce ko sa sa ordinateur bés xool nga xam ne da ngay lire rek muy wolof nga bés lépp mu wax la ko. ku dégg wolof mën koo mën koo liir mën koo mën koo utiliser. Hmm. Google wolof Wikipédia wolof. lépp am na wolof yëpp am na wolof. Hmm. ba Facebook boo bindee wolof bu normal mu traduire la ko normal. dafa di nag sénégalais yi mënuñoo bind wolof. Hmm. moo tax boo bindee doo am traduction bu normal parce que moom wolof bu baax lañ ko jàngalee traduire. mais professeur lan nga jàpp ni moo ñuy bloqué kon ba jamono ji làng yooyu mënul dugg ci école bi. Euh, volonté politique volonté politique ak dignité ak xam dëgg-dëgg njëriñal éducation ndax tey jii boo jëlee texte yi yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo tënk éducation boo ko liiree sa xol day sedd ndax niñ ko kañee niñ ko defaree wax la ne la waaw doomu sénégalais bi nii la war a mel euh, mbatitam dafa war a feeñ ci njàng bi culture am daf ci war a feeñ histoire am daf ci war a feeñ nangam nangam mais dans la pratique boo duggee noonu lay vidé fan ngay gis culture sénégalais culture Sénégal ñu jàngale ko yow si sa parcours fan nga ko gis ñu jàngale ko sérieusement culture Sénégal walla histoire u Sénégal bu budul ay fee yu ndaw yu banaal yoo xam ne sax ay tubaab ñoo ko bind à la hmm. bi suñu gars yi ximalikoo lañ góorgóorlu bindal ko seen bopp te dañ koo bindaat rek donc problème bi c'est un problème d'éducation hmm. ban genre école la ñu war a am un parce que nag Sénégal école balaa ñu cee wax rek examen yi passé résultat yi bon. te moo ne depuis toujours nag noonu la mos a mel. Mm-hmm. Sénégal ñun mosuñoo am ay plus ay trente cinq pour cent lañuy la ñuy am examen trent cinq pour cent de réussite maanaam soixante cinq pour cent d' échec. Mm-hmm. ay soixante pour cent d' échec chaque année moom la ñuy am. même donc bu ñu waxee débat éducation rek mooy école yi dafa am ndox jàngalekat yi. ñu ngi grève résultat yi baaxul. Mm-hmm. mais kañ la ñuy wax ñun li ñuy jàngal suñu doom yi ci biir école yi lan la. parce que état mën nañ ko joxoñ nag de baaraamu tuuma ne ko dafa waroon am volonté politique ndax ñoom ñoo ne dañoo bëgg a diriger ñoom ñoo war a am vision mm-hmm. mais population bi nga xam ne seen doom yi ñooy jàng ci école bi ñoom lan la xaal pour mettre le débat sur la table yow yaay yóbbu sa doom école ñu ko fay jàngal lañ ko fay jàngal sa xel mësu see dem doo fa jaar sax ba xool ko mm-hmm. léegi nag mbir mi nit war la koo gën a bëgg mm-hmm. je trouve que population bi lañ war a sensibiliser ba ñu xam njëriñ bi ñu leen doon jural tey jii seen doom yi bu njàng mi baaxoon bu ko defee ñoom ñu def pression si ñi nga xam ne ñoom ñoo leen fal ñoo ñooñu yéwénal loolu mais fi léegi ñu ngi bàyyi autorités yi <laughs> mais autorités amuñ benn vision bu ñu amoon vision romb nañ fi. Hmm. te ñoom lañ bàyyee coow li <laughs> loolu rek la volonté politique la te volonté politique nag population moo koy forcer. politique yi. Mm-hmm. Mm-hmm. mais politiciens yi du jóge si ñoom. <laughs> waaw voilà donc man man euh, je pense que moom li mu wax man foofu foofu ñëw parce que ci côté li nga xamante moom mooy volonté politique bi. Mm-hmm. parce que man mënuma comprendre Sénégal ñu ne. mënuñoo jël. wolof wala bokk yenn langue parce que du ma wax yenn langue parce que yéen yenn langue yi ay langue yu xaw yu xaw euh, day day day dëkki li nga xamante ni mooy identité ethnique bi mais wolof bi nga xamante ne mën nañu ko dégg fu nekk mhm. lu tax nanguwuñu koo dugal ci yi te boo demee ci yenn entité yi nga fee fekk ci mhm. suñu bi ñu nekk mi wàllu journalisme mhm. fekkoon dañoo liñ ne liñ ne euh, donc duñ ko mos dugal ci ci kii bi parce que dem nañ bi nga xam ne fi nekk xam nañ ne dëkk bi yëpp comprendre nañu wolof moo waral boo télévision boo dem. Mhm. à part télévision nationale bi yenn day def yenn yenn langues yi mandingo yu ni mel mais foo foo dem foo ñu def journal olof. def journal France parce que xam nañ ni nit ñi. olof ak la ñuy gën a suivre. ko ci ci ci bi bayuñu ko ñoom ñi nga xamante ni président Macky Sall buy def déclaration foog mu def français foog mu def olof. Mhm. donc bu bu fekkoon loolu danaan kon foog ma def pulaar foog ma def mandeng foog ma def lii mais mhm. olof dafa bokk ci li nga xam ne dañ ko war a mën a utiliser. pour mën a développer réew am na leen loo xamante ne je pense que aussi ñoom ñoom ñoo ko bëgg a suul muy suul li nga xamante ne moom mooy importance su langue bi nga xam mooy langue mm-hmm. euh, la euh, mm-hmm. olof sax nekkul langue boo xamante ni dafa nekk langue internationale parce que la boo xamante ni dafa am am ay ci li nga xamante ne moom mooy. Euh, Égypte ancienne. Mhm. ba joxoon ay mots. Mhm. am si woo jàpp ba gis naa ko léegi te ñu ne am na mots yoo xamante ne olof la mais boo demee ci langue égyptienne da nga fay fekk. Mhm. lu mel ni li naan euh, xar. ñoom ñu koy bindee HR. bu dee se bu dee fii ñu ne xar kanam. Euh, xar kanam ak xar ñu nekk même su ñu koy waxee benn la mais bind bi moom moo moo am différence. KH non HR ñoom ñoo la ñuy bind ñoom ñoom égyptiens yi mais olof ñoom ñooy bind xar kanam di def HAR. boo demee ci li nga xamante moom mooy euh, xeet. ñoom xeet kaan kaan bi ñu yor ni bant bi nga Sénégal danaa danaan yet mhm. ñi ne xeet ñi ne ñi ne ñi ne yet mhm. donc mu nekk langue yoo xamante ne loolu foog ñu xam ne ñun ñu langue boo xamante tëb tëb tëb nii rek mhm. ñu koy làkk parce que olof boo taxoon ak français di ko wax dina ci jàpp ne kii dina comprendre parce que am na ay mots yoo xamante ne dina xam ne mots yi kii lii lii lay wax boo demee ci ci ci arabe parce que olof lépp ngi ci biir. Mm-hmm. parce que euh, li ñu wax naan wolof c' est c' est une mélange de langue. parce que mm-hmm. olof am na am na am na ay mots anglais ci biir. anglais am na mot ci biir am na mot leen ci biir. Mm-hmm. bu dee bu dee wolof bi ñuy wax fii laa mais bu dee boo boo demee ci côté village ñoom. beneen façon olof la ñuy wax. muy olof kajoor kajoor yu mel. donc pour man état bi moom moo moom moo jëlul décision parce que dafa mel dafa am poids bu ñu teg ci kawam ne ko. foog li nga xamante ni moom mooy moom mooy français bi nga nga jëmmal ko foog Sénégal mm-hmm. même anglais bi sax pour ñu pour ñu jëmmal ko sax problème mais il ñu imposer ñu nañu euh, français français français mm-hmm. foog ñu imposer ñu ko te loolu ñun ñoo ko war a mën a bañ parce que mm-hmm. jeune bi nga xamante ni mi ngi kër ga boo ko expliquer expliquer expliquer mu të olof ngay dem wax ak moom ne ko boo ne ko euh, sama yaay jox na la téeméer lii lii français mën na bañ a comprendre parce que du xam ay prix donc pourquoi ñuy ñu ñuy entêté ci bañ bañ ne duñ jàngale langue wolof parce que français langue juste langue de travail de communication mais ki nga xamante ni euh, jàng na la français parce que gis yi lañ jaar te jàng ñu ko fenn exemple am ñoo xam ne exemple naa la jox ñoo xamante ne ay ah, ay ay lañ ci daara yi lañ jaar mais mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. parce mu toog di laax ay mots français yoo dem naa ko yow foo ko jàngee mu ne ma jànguma ko mais damay dama ci frontu ko war a mën a mën a imposer parce que nous mhm. sommes juste euh, pays boo xamante ne nous euh, par la France mhm. nañu mhm. nañu may ñi xamante ñooy ñooy jàngalekat ñi nga dañuy perdre suñu langue bi nga xamante moom la importance olof bi am dañ koy perte boobaa euh, je pense que mbir mi dañuy mujjaat naan foog ñu delluwaat ci suñu affaire maam alors que c'est trop tard je pense que dogguma la ma fal Euh, même daara yi. Mhm. daara yi xale yi bu ñu leen jàng alxuraan dañ làkk olof. Mhm. dama xool nii xale yi génn ci daara boo xoolee ñooy gën a yeewu. Mhm. ñooy gën a muus xale bi nga xam ne daa fréquenté école euh, école école normale quoi. boo xam ne français la ñuy làkk. te boo xoolee fi Sénégal néew na ay euh, école yi nga xam dañuy joxe ay cour wolof. à part université nga xam ne boo demee matière facultative lay doon. man benn laa ci xamoon maa ngi la koy wax benn prêtre. bu doon projet mm-hmm. projet wolof diiso je pense mm-hmm. que moo fa xam xam nga mm-hmm. ko que son âme repose en paix décédé na daaw mais c'est un projet tellement intéressant boo xam ne moom euh, déjà tubaab la tubaab la nekk na fii ci Sénégal di jàngale ay doomu Sénégal wolof est-ce que yaa ngi gis loolu message yu doon jógee ca Pape François depuis Vatican ak Bible bi moom moo koy traduire en wolof di ko jàngal nit ci xam nga loolu kenn xam nga ñun xam nga ñun xam nga ñun tardé nañ quelque part <laughs> déjà bu ñëwee ba tubaab bi jógee dëkkam ñëw fii Sénégal di ñu jàngal wolof mm-hmm. <laughs> loolu doy na waar de professeur dafa doy waar dafa doy waar xam nga li lay wan doy waar bi rek loolu li la koy euh, maanaam baromètre bi ngay njëkk a jël rek mooy projet bi ma lay wax noonu lecture pour tous mais du gouvernement Sénégal moo koy financé mm-hmm. <laughs> ay bailleurs extérieurs ñoo koy financé mm-hmm. ñoom ñoo ñuy financé pour ñun ñu jàngee suñuy làkk. Mhm. <laughs> xam nga loolu dafa dafa dafa doy waar. léegi te aussi ma yokk ci leen loo xamante ni mhm. ci li war ne langue dafa am importance mooy langue nationale ak langue olof bi am na organisation yu ñuy wax euh, Peace Corps muy corps de la paix bu États-Unis mhm. bu ñëwee fii Sénégal au lieu ñoom ñu làkk anglais bi mais dañuy dañuy dañuy làkk langue bi nga xam ne moo fi nekk bu ñu bu ñu séeréer yi séeréer la làkk mhm. xam naa ci kenn koo xamante ne David Van la tudd mi ngi nekkoon au niveau du moo doon mhm. initier nit ñi à euh, l'agriculture mhm. donc moom bu ñëwee boo ko làkkee anglais sax du la wuyu danaan la taluma làkk anglais olof nga may làkk boo ko làkk anglais sax du la wuyu mhm. olof lay làkk olof yi set wecc lay làkk mhm. donc bu demee bañ ñun ay étranger ñëw di jàng olof boobu dem seen dëkk yi états-unis di ko jàngalewaat foofu parce que day dem ci université yi mhm. doomu Sénégal ñëw déggu olof donc day dem ci benn université fay xaas pour doomam jàng olof donc pourquoi pas ñun ñi mënu ñëw war gën mën a jëmmal suñu suñu langue yi mais ñu ne parce que booy làkk français xuloon naa si jàngoo français. te mhm. te boo gisee fii kuy def journal di wax olof olof bu leer. nit ñi dañ lay bëgg parce que dañ dañ naan waaw kii moo gën a dégg olof Sénégal meilleur meilleur présentateur olof parce que. Mhm. Mhm. olof ci boobu moo nekk langue boo xamante ni. foo ko làkkee nit ñi nit ñi comprendre nit ñi ko bëgg. loolu loolu loolu mooy li ñuy wax yaras. Hmm. yaras mooy complexé. Hmm. yaras mooy comme loolu complexé la yaa ngi jàngal de professeur. <laughs> yaras yaras boo xam ne nag mooy li ma lay wax rek fi ñu ko jaarale mooy ci école bi. Hmm. ndax man mënumaa jaar école française jàng fa pandant dix ans quinze ans te doo ci yóbbaale dara ndax langue mooy li ma véhicule de culture la mbatit ci làkk ci làkk lay jaar mm-hmm. culture ci mm-hmm. làkk lay jaar mm-hmm. ñun Sénégal amaguñ l'identité du Sénégalais type qui est un type amaguñu ko te loolu fi léegi amuñ ko dañuy errer nous sommes à un tiers occidental à un tiers africain à un tiers te ni nga koy waxee ci làkk wi noonu pour am lu ndaw rek lu ma si lu ma lu ma si ñëwaat mooy Euh, input yi bu ñuy wax input yi mooy àbb yi. Mhm. amul làkk ci àdduna boo xam ne du àbb ay baat. tey jii boo demee si espagnol boo jëlee presque mots yi nga xam ne yëpp dafa laal wàllu construction ak maçonnerie. Mhm. presque si arabe lañ ko jëlee. Hmm. parce que arabe yi ñoo fa jiitu doon tabax. kon wolof am na naam ay baat. Mhm. bu fekkee ay baat moom la ñuy wax ñun dafa am lu ñuy wax la wolof urbain. waaye wolof pur ay waat lay wax. Hmm. du wax sax ay bunt ay wunt lay wax. Hmm. dangay dégg benn bët na ñaari gën mm, yooyu yëpp ay kii yoo xam dafa nekk ci wolof mais. ba la toog. mu ngoog léegi ñun dafa am ay ay ay waat yoo xam ne dañ ko fàtte dafa réer. Mm-hmm. ba ñu yaakaar ne amul ci wolof. mooy waral ci olof urbain bi mooy bi ñuy wax fii surtout lu ci ëpp ci biir dakaar mm-hmm. mu bëri anglais bëri français. waaye nekkul ne waat yooyu dafa amul ci wolof de mu ngi ci wolof bëri ci ba dee. dañ ko utiliser wul dañ ko utiliser wul. Hmm. te nag loo utiliser wul da ngay dem ba fàtte ko mu dem ba réer. Hmm. moo tax boo demee ci ci ci ci kuréel boobu ma lay wax di wax am na benn wëppa woo xam ne benn benn benn benn branche boo xam ne ñoom si loolu la ñuy yëngu mooy fent ak gëstuwaat baat yi nga xam ne dafa réeroon ñu indiwaat ko. Hmm. tey buñ la waxee nga wax téléphone yow téléphone ngay wax ndax moom nga dégg. wolof jolosu lay wax. jolosu jolosu. waat si nouvelle technologie baat yi nga xam ne lu bees la amul yooyu dañ koy fent mooy maanaam da nga koy créer mais am na yoo xam ne suñu maam yi daan nañ ko jëfandikoo mhm. ndax yàgg nañ fi di dund di demlante di dimlante di waxtaan di déggante mhm. te am na ay baat yu ñu daan utiliser mhm. baat yooyu ñu ngi fi ba léegi dañ ko utiliser tul moo tax ñu yaakaar na nekk fi mais am na fi léegi nag euh, buñ ñëwee ci ci ci ci ci kii bi nga doon wax ci ci ci frein wu développement bi am na benn ponk bu ma la bëggoon tontu daf ma daf daf daf daf ma rëcc léegi. Mhm. mooy ci lu tax ñu war a lu tax ñun nangu ñoo jàngalee wolof. lu tax nanguwuñ koo jàng si suñu suñu suñu suñu suñu suñu école yi xam nga français dañuy wax ne c'est un butin colonial. Mm. tubaab bi daf ko fi indi woon pour noot ñu si. Mhm. ba mu demee ñun fexe nañ ba jëlaat ko di ko jëfandikoo. Mhm. yaakaar na ñoo ko nax fekk moom moo ñu nax. ndax loolu la fi bàyyi moo tax tey mu mën fi dellu si waat ma jox la ci réewu àdduna yi ban réew nga fi gis mu nekk réew moo xam ne xam nañ ko mu nekk réew mu tekki boo xam ne dafay jëfandikoo beneen beneen làkk woo xam ne du wasam tey boo jëlee ay dëkk bu mel ni ay Luxembourg genre dëkk yooyu dëkk yu ndaw la hmm. boo fa demee li ñuy tuuti tuuti <laughs> seen làkk la ñuy làkk de hmm. déggal anglais déggal français déggal lu neex boo ñëwee seen bos ngay làkk seen administration moom moo fay itali bii boo génnee itali fan nga dégg ñuy làkkaat italien. mais langue ak culture mooy développé. mooy développé Cheikh Anta Diop wax na ko. te Sénégal ñun nag nangooguñu mhm. loolu. Mhm. parce que nanguwuñu ko nag dañuy dellu ginnaaw rek. culture mooy véhicule. pur mhm. de développement ndax nit ki balaa muy balaa muy mën a jëf dara. day xam moom ki mu doon. te pour nga xam ki nga doon ci culture képp la mën a nekk. mën nañ la jàngal histoire mille fois. Sylvie. nga koy jàng di jàpp ay date. mais tey jii benn géwél séeréer bu duggoon léegi taggal la sa ñetti maam nga tasaare fii yëpp fi muy jam ci yow la hmm. fi muy ci yow la làkk ak culture dafa nekk ci nit nit ki pour mu xam boppam foog ñu ko koy wax hmm. te ñun nous sommes des cultures yoo xam ne ay culture orale la ñun histoire waruñ ko jàng ci këyit dañu ko war a wax loolu c'est une réalité léegi nag si exemple bi ma doon ñëw mooy Italie ma ne boo jógee Italie fan nga déggaat fu ñuy làkk italien man de xaw ma ko wax dëgg yàlla français bii nii bu mhm. weesoo France ak Belgique Suisse mhm. Canada ay dëkku Afrique ñu ñoo fi làkk français français tekkiwul dara ci échiquier bi mhm. anglais ak chinois bi sax moo ko ëpp solo fi mu toll nii jamono jii nii léegi ñun ñu ne rek ñun dañ ciy tënku bu nekkoon anglais sax ñu mën a nangu ndax moo gën a yaatu wala sax arabe dëkk yi koy làkk ñoo gën a bari dëkk yi làkk français. Mhm, fuuf. léegi ñun dañoo ragal soppi ne tey jii ñun bu fekkee ñun ñoo fi wax olof kon ñun rek a koy wax italien ñoom rek ay wax italien te ñëpp nga fay dem ñu ngi jëflanteek àdduna sépp di jël seen mbir yi di ko soppi di ko di ko di di di di ko firi te firi boobu noonu moo indi coow loolu ngay dégg ci film boobu ma lay wax film boo xam ne c'est un court métrage boo xam ne benn belge moo ko réalisé. Mm. sous-titré ko en wolof maanaam firi ko ci wolof. ñu bind ko mais boo gisee Sénégal si si si festival bi ñëw nanguwuñ koo jël. Mhm. xam lu tax. Mhm. bind bi la. ndax ñay sélectionné sax est-ce que mën nañoo liir wolof mën koo bind. Mhm. ndax ñëpp a wax wolof. mais bind wolof ak liir wolof moom la nit ñi dul def. donc ñoom. jànguñu ko jànguñu ko. malheureusement jànguñu ko. te tey jii projet boobu comme ni nga koy wax man ba ma ciy dugg. Mhm. li ma si ëppaloon solo moo doon rek ma sous-titré. Mhm. parce que tey jii boo xoolee documentaire yu am na documentaire yoo xam ne yu am solo la am na loo ne day jàngale xeet wi wala xeet am na loo xam ne c'est des connaissances générales mhm. scientifiques yoo xam ne def nañ ci ay documentaire yu mag mais documentaire yooyu tey bu ñu ko bëggee jàngal suñ doom yi bu fekkee mën nañ lire olof mën koo bind yooyu dañ koy sous-titrer rek documentaire boo leen indi naka russe yi def sax sur la lune boo ko tegee fii tey ñu suturé ko olof xale yi bu ñu amee dix ans dañ koy liir nii di xam kii li muy wax lan la. Hmm. ñun français bi tey boo jëlee Sénégal amul benn xam-xam bu am fulla buñ ci jàng bu dul di wax di comme ni nga koy waxee di rouler R. waa ji day wax ñu ne xëy ak a dégg tubaab et après waxul xam-xam de dégg tubaab lañ koy kañee. Mm-hmm. nit day war a wax. bu defee tuuti faute ci français ñu jàpp ne waa ji xamul dara moonte ku bëri xam-xam la francais moo ko sonal. te duñ ko pardonné mukk te duñ ko ko baal defal placer benn la place de la. kenn du la ko baal te ñun ci toroxal wolof lañ dëkk ci wàllu wax. Mhm. wolof dafa am lu ñuy wax ay article boobu laay jël mooy exemple bi gën a ndaw. Mhm. ay li ñuy wax ay article de classe. boo déggee ñuy wax ay article de classe article bi dafay soppeeku par exemple boo jëlee bi bi article la danga naan xale bi nga ne soxna si si bi mooy article nga ne kër gi. nga ne ndaw ñi et cetera et cetera. kon baat bu nekk dafa am benn article boo xam ne moom lay àndal ñun ay sant lañ koy oowee. dafa am tur am sant boo nee kër gi kër mooy tur gi mooy sant bi. sant bi mooy article. mooy article bi. Mhm. article boobu nag article de classe la dafay décliné wu. Mhm. tey jii da nga naan kër googu. Mhm. mooy la maison. dont on ah, parle bu la neexee nga ne kër gii. ba léegi ak article lay toog booy wax da naan jigéen jooju wala nga ne jigéen jii xale boobu wala xale bii. mais boo xoolee tey si wolof urbain bi dafa am lu ñuy wax laa dictature du bii. Mm-hmm. bii la ñuy jël fu ñu neex ñu dugal ko fa. te ma jox la si misaal bu ndaw li lay wan li lay wan gànjaru wolof ak subtilité bi. Mm-hmm. tey boo jëlee baat bu mel ni doom. li ñuy wax sama doom. Mm-hmm. mooy moo fils wala maa fii. tey doom boobu wolof jëlewu ko sax si cadre doom mooy meññeef meññeef mooy maanaam loo xam ne dafa bàyyeekoo ci dara mooy doom masalam doomu mango. doomu garab doomu nangam doomu nangam mais bu fekkee ne nit la doomu nit wolof daf naan doom ji ji la ko santale boo nee doom ji kooku nit lay wax ku màññee si nit waaye boo nee doom bi rek xam ne doomu màngo la wala doomu leneen gis nga subtilité boobu. Hmm. article bi moo changé terme bi changé sens. mais ñun duñ ko xam ndax ñun bii rek la ñuy wax. Hmm. sa doom bi de moom. sa doom bi moom xamal ne doomu màngo la wala doomu leneen waaye doomu nit. <laughs> olof mbedd bi. olof mbedd sa doom ji la ñu war a wax. léegi article yooyu day dem ba yu si bëri day saaw kenn du ko dégg ndax duñ ko utiliser ndax duñ ko utiliser donc pour dire que làkk wi tey am na lépp li nga xam ne soxla nañ ko ngir mën ko dugal ci école yi hmm. actualité bi si mujj mooy benn euh, jàngalekatu xanaas xanaas boo ko defee mooy mooy xamtu boo xam ne dafa jóge si dundat ak suuf ñun moom lañ boole def ko xanaas mooy science de la vie et de la terre mooy xanaas mooy xanaas hmm. mais moom firi na ko maanaam téere yi nga xam ne moom la ñu jàngee SVT ci école yi. Hmm. daara yu diggu doom yi CM yeeg yooyu. def na ko ci wolof kaw ba suuf lépp téere bi génn ñu ngi koy jaay mais doo ko dégg ci benn média. Hmm. mais problème bi problème bi mu am mooy mooy mooy mooy pourquoi ki li nga xamante moom mooy ñu jël benn projet hmm. yow daal koy euh, def transcription ci ci ci langue olof niñ bëggu bëgguñu koo sélectionner c'est parce que langue bi dañ ko reconnaître wul wala wala bokk wala ñi war a sélectionné ñoom ñoom ñoo bëggul euh, euh, dundal li nga xamante ne moom mooy langue parce que man su ma gisee ko xamante ne euh, français la wala boo ko xamante ni benn benn nationalité moom nangu jël documentaire am def ko ci mm-hmm. langue olof mm-hmm. ñun ñu war koo mën a jëmmal ba projet boobu jàll mm-hmm. ba ba mu nekk loo xam ne dañ koy dañ koy waxtaan si àdduna sépp ñu écarté ko man daf may jaay est-ce que mu nga ñëwaat juste si projet boobu nakal demee ba kooku nangoo jël def transcription à wolof à waaw parce que kooku Euh, moom xale bi si boppam xëy na bu fekkee mës na ñëw Sénégal xëy na bi mu fi ñëw xale la woon mais papam moom bëri na tànk Sénégal te dafay yëngu ci wàllu ci wàllu cinéma léegi xale bi mu defee film bi moom dafa xool réew yi nga xam ne am nañ ay festival yu mag ci wàllu ciné cinéma Sénégal bokk ci mooy dakaar Court bi si la bokk mu ne comme man damay ñëw senegal ak Dakar Court ni mu mel mu jël film bi te film bi nag dafa concerné woon monde bi yëpp ndax ñu ngi ko génne ci période Covid bi muy ay jaaxle yoo xam ne jàng jàngkat yi am nañ ko. Mm-hmm. par rapport ak jàng sorienté bi mooy enseignement à distance beeg yooyu ni maanaam njàng mi soppeekoo. Mm-hmm. ñoom loolu si la si lay wax. kon loolu ñëpp la concerné mu ne ginnaaw dakaar am na festival bàyyi mu sous-titré ko wolof ngir waa Dakar mën a jëfandikoo liy génn ci film boobu waaye bi mu ko bi mu laajtee dañ ne ko. Euh, wolof effectivement bokkul woon ci critère de sélection yi. Hmm. maanaam film bu ñu sous-titré boo xam ne euh, firi nañ ko ci anglais moo ëpp chance film boo xam ne firi nañ ko ci wolof. ci wolof loolu nag di gàcce gu rëy. gàcce la gàcce gu rëy ci Sénégal. boo amee festival bu mag ci Sénégal mu am nit ku jë ku bàyyi ko fële di saa Belgique ñëw jël sa làkk yow valoriser ko bind mi ak lii dawal bi mooy maanaam liir bi ñu def ko ci film bi. indi ko fii di ko présenté bu dul dara dul dara waroon nañ ko moom sax delloo ko njukkal gërëm ko rek ne ko même bu fekkee ne film bi ñu neexuñu sax waaye suñu làkk bi nga def rek dafa tax ñu bëgg ko te cinéma nag may fàttali ne cinéma véhicule culture la tey bu ñu xamee états uni mhm. di bëgg États-Unis boo génnee fii koo gis mu sol jean sol chemise mhm. <laughs> mais si cinéma la jaar di mhm. fan lañ ko gisee koo gis muy def film ci dëkkam dafa bëgg a jaay mbatitam ñun defuñ suñu film. jaay suñu mbatit mbatit mooy culture. culture xam nga fii aada ak cosaan la ñuy wax. Mhm. cosaan mooy tradition. aada mooy loo tàmm di def. Mhm. tey jii boo xëyee saa yoo xëyee ñëw naan benn café soog a di dugg studio loolu aada la ci yow. Mhm. donc c'est une habitude coutume la bokkul ak mbatit mbatit mooy culture mboor ak mbatit. mboor boo ko déggee mooy histoire mbatit mooy culture mais ñun aada ak cosaan lañ miin a wax. suñu aada la ñuy wax rek fekk aada mën nga ko sos ci ñetti fan. mën na mbir am mbir moo xam ne seen kër sa yaay doon na ko def boo ko bàyyee nekkatu fa mm. yow boo tàmbalee jël leneen loolu mooy sa aada mm. damaa aada woo di naan kafe saa yu ma xëyee donc c'est une habitude bu yàgg tàmm la mm. habitude buñ miin la mais mbatit mooy terme bi nga xam ne mooy tekki culture donc cinéma mooy véhiculer culture xoolal indo yi rarement ngay gis ñoom pour sol chemise loolu ye loolu lu bees la mais seen tenue traditionnelle la ñuy sol bu def film mais ñun xoolal film sénégalais yow tu as l' impression yenn saa yi même d' être en France ou aux unis mm-hmm. buñ la waxul ne Sénégal la doo xam ne Sénégal la tey nag buñ jëlee lu mel ni làkk ak ni mu fi mu toll ci nit ñu jël ko def ko ci benn film jàpp naa ne tey jii ñi nga xam ne ñoo ŋànk kuréel woowu waroon nañ ne serait que pour l'honneur ak pour ñoŋal suñu làkk ñu sélectionné film boobu mm-hmm. ba pare ma siy teg benn affaire bu ndaw rek boo xam ne monde cinéma dans le monde entier. Mhm. am na benn baat baat bu ñuy wax tënk. boo xam ne si cinéma dañ ko homologué tey boo demee dans le monde du cinéma foo wax tënk nit ñi xam nañ li nga bëgg wax. Mhm. ak làkk bu ñu mënti làkk si àdduna. te tënk bu wolof bii la ñu bëri sax dañoo yaakaaroon ne mm. ay euh, ay beneen làkk la ndax ni koy bindee xam nga wolof bu bindee të mm. mooy tee mm. bind e bii am ñaari tomb yi ci kaw bind n bind kaa dafa niroog ay làkku slave ak yooyu ñu yaakaar fekk tënk bu Sénégal tënk boobu mooy pitch tey nga am benn idée de film nga ñëw ñu ne la defal tënkal ma nga wax ko ci baat yu gàtt nit ki mën a xam lan maanaam un te tey loolu foo dem si cinéma ci àdduna ak làkk bu ñu mënti làkk boo leen waxee tënk xam nañ lu muy tekki te muy baatu wolof. ok ok ma ñëw foofu ci loolu xanaa doyoon na pour tey kii bu ko ku ko kii ci wolof. ñu mën la ko jox dafa dafa dafa mel ne alphabet bu wolof dafa xaw a niróog yenn alphabet yu ci mel ne ay alphabet yu ay dëtt yu mais parce que. Mhm. da gis ay n yu am tilde comme si espagnol. am mhm. am e bu am ñaari ñaari tomb ci kaw. Mhm. Euh, ndax euh, ressemblance boobu ndax euh, juste fa lañ ko tibbee wala boo wolof dafa am alphabet spécifique boo xamante ne moom la ñuy pour bind. parce que damay gis ne bu ñu bind lu lu mel ne ñoor Mm-hmm. boo bindee ñoor def enn boo xam ne dafa am genre tilde bi ci kaw nii mm-hmm. continuer ko mm-hmm. loolu bu dee bu ko espagnol tiimee dina mun lii parce que parce que xam na ne n bi ñoom si ñoom ñëla si olof tamit ñu fii donc ndax loolu dañoo inspiré wu foofu wala olof comme ñi leen dafa am seen alphabet boobu wax mënuñu utiliser pour a bind waaw xam nga alphabet mooy li ñuy wax abacadda lañ koy wax alphabet lettres yi kenn moomu ko ay ndab la yoo xam ne ku neex nga yekk ci lu la neex tey français bi même alphabet bi lay utiliser mooy alphabet latin mm-hmm. bi nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci latin yi mm-hmm. français moom lay utiliser mm-hmm. espagnol da koy utiliser euh, anglais da koy utiliser mais boo jëlee français bi ni muy waxee a ak anglais bi ni mu koy liire du benn kii danaan ay e, kii ne a kii ne e, kii ne i wolof tamit noonu la jëlee alphabet latin bi lettre les lettres latines mu yekk ci wolof léegi nag ginnaaw dafa am waat yoo xam ne ay baat yoo xam ne amul ci wolof wala amul ci fële yooyu da nga koy àbb du àbb sax maanaam danga koy jëfandikoo moo waral n tilde boobu nekk ci ak son bi nga xam ne mooy ŋë bu ñu waxee ŋë comme boo naan ŋaam wala nga ne basang ni mu terminé mooy ŋë boobu mooy enn bi nga xam ne dañ koy wàcce ba suuf defal ko ab lonk waaye boo jëlee baat bu ci mel ni z amul ci wolof wala baat bu ci mel ni v suñu alphabet ñaata lettre la am euh, nañ am nañ vingt six waaye comme français comme français jàpp sax vingt sept mhm. parce que ñë bi moo tax mais boo dugalee ñë bi ak ñë bi da ngay génne tamit z bi mooy z bi ak double v bi. amuñu boobu ñun. ñoo non non wolof gisoo moo tax suñu mag yi teesee wu bi ñu doon tooñee Moustapha Niass parce que ñun amuñu v amul moo wolof bu tàmbalee v. Mhm. amuñ moo wolof bu tàmbalee wala bu am son z. Mhm. se la ñu am ak w. léegi nag ak maintenant boo jëlee li ñuy wax voyel yi ñu koy owee ay wooyee. wooyee yi yi ñu xam la a i. ou ak e léegi dañ ci boole e bi ak e bi nga xam ne am na tomb yi yooyu dañ ko ci yokk waaye buñ jëlee globalement même chose la ñuy am 26 la ñuy am. 26 la ñuy am léegi nag dañuy am ay woye yu ñuy xëcc. mooy maanaam tey e boo ko xëccee maanaam buñ ko dublee mooy dañuy wax dañ koo xëcc. bu fekkee coowaan la coowaan di consonne boo ko doublé dañuy wax dañ koo seexal. te loolu sax niñ ko tuddee rek ngay xam ne wolof dafa gànjaru. Mm-hmm. ndax e tey ji boo jëlee set ñu ne kii dafa set maanaam il est nga ne maa ngi seet diw boobu ëbbi da nga koy bind ñaar yoon maanaam ebi da nga koo xëcc mhm. boo naan kii de seet la dañ koo maye boobu nga xam ne ëbbi dañ koo combañ mooy maanaam dañ cey def accent mu nekk ëbbu diis ñu xëcc ko mhm. gis nga ni gis gis nga gis nga ni mu sewee mhm. te tubaab ak yooyu ñoom duñ def différence bi si yooyu ñoom. kon kon kon boobu nañu wax ne kon. Sénégal am na am na heure bi jot na. <laughs> waaw li ci benn question boobu rek muy affaire homonyme ñaari minute ci parce que français danaan homonyme mun nañu muy bind son ak mm-hmm. son. Mm-hmm. ñu nekk même même même bind bi mais duñ duñu xaw a bokk signification. donc est-ce que loolu am na ci olof. bëri na ci. Mm-hmm. waaw bëri na ci lool lool lool. bëri na ci lool da ngay gis benn benn benn baat boo xam ne day am mooy doom bi ñu doon wax rek. da nga naan doom ne doom fekk ñaar yi bokkul. même xar xar bi xar gi boo nee ndaw kii boo nee ndaw ki ñu ne kii as ndaw la mhm. waaye boo naan buñ naan ndaw gi booy ndaw bi nga xam ne comme ñu ne jigéen ñàkk na ndawam ak yooyu mm. Mm. te ndaw ak ndaw la ñaari ñoo niroo waaye bokkuñ li ñuy tekki <laughs> professeur euh, c'était super intéressant euh, heure bi jot na malheureusement Babacar dañoo journal ñu bàyyi la mm. rek nga joxe sa mot de la fin nga tàggatoo euh, li may tàggatoowee rek mooy jot na tey comme ni ngeen ko defee yéen Euh, maanaam saabalkat yëpp mooy journaliste yëpp jóg. ci ñuy saabal mooy journaliste saabal waaw mooy journaliste. <laughs> taskatu xibaar nag. <laughs> non taskatu xibaar mooy képp kuy tas xibaar rek man mën nga ma wax benn xibaar ma génn tas ko te duma mooy kuy tas xibaar loolu loolu. ay baatu ñu boole la rek <laughs> donc des des na tey donc këru këru këru këru këru saabal yëpp. Mm-hmm. ñu ñu ñu ñu teg maanaam wópp wi thème bi mm-hmm. ñëpp. jublu ci ñu xam ne tey jii suñu doom yi am nañu yoon boo xam ne mën nañu fa jàng jàng mu gën a yomb gën a tey. Mm-hmm. ñu gën a xam gën a mën a jëriñ suñu réew. Euh, mënuma jeexal te duma ma jaajëfal tamit euh, mooy kuréel gi ma lay wax nii wax. Mm-hmm. parce que dama siy joxe rek ay ay ay lim yu ndaw yoo xam ne. pour mm-hmm. wane liggéey bi nga xam ne ñu koy def. boo xoolee tey jii am na lu ñuy wax am nañ fukk ak juróom-ñaari kipango mooy set groupe kipango mooy group groupe. set groupe yoo xam ne nii tey ci WhatsApp. ñu ngi jàng wolof ci lu ñu dul fay dara jëlal 17 groupes nga multiplier ko par 256 personnes. Mm-hmm. ñooñu ñëpp suba ak ngoon ñu ngi xëy di jàng wolof ngir mën koo bind mën koo dawal. Mm-hmm. dawal mooy liir mën koo dawal dawal bu leer. Mm-hmm. bi ñu commencé ba léegi ki kipangoo bi ñu ngi ko sos si 2018 boobook léegi am na 666 personnes. juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom benn nit yoo xam ne kiilu nañ mooy maanaam def nañ examen bi ba jàll. kon ñooñu liggéey boobu jot na tey tamit naka noonu saabalkat yi. Mhm. yaatal ko. Mhm. mais ñu fësal ko ba nit ñi gën a mën a dem ba ci yow tey jii Sylvie ak Bam moon ngeen mhm. dem bindu ji. ndax njàng mi doo fay dara. Mm-hmm. nga ñëw bind dugg ci kippaangoo ñu jàngal ba nga mën a bind mën a dawal ni ñu ko bëggee ñu yaatal ko et puis gën ko institutionnaliser nag boo defee tamit comme lu mel ni réew mi FM mm-hmm. ñuy bind réew mi <laughs> niñ ko war a mm-hmm. bindee bokk nañ bokk nañ gis nekkee <laughs> boobu boobu dam boobu moo tax woon boobu naa leen ko sànni waaleen rek <laughs> ah, voilà kon ñu ñaanal ñu ñaanal jërëjëf réew mi FM ñu leen di ziar bu baax di leen gërëmaat beneen yoon ah, ñu ñaanalante rek waaw merci beaucoup moo Fall di gërëm bu baax suñu invité Oumar Sow Diagne enseignant la cherche chercheur ak professeur traducteur langue wolof dégg ngeen ko émission bi c'était super intéressant ñu koy gërëm bu baax ndax euh, kuuram la bàyyi daal di ñëw wuy suñu invitation <laughs> ñu koy gërëm di ko sant bu baax a baax di gërëm Adama mu féete woon ci cabine technique bi ak mbooleem déglukat euh, Babacar Ndiaye mi ngi ñëw jukki leen xibaar bi ñun ñu ngi leen di dig daje mercredi bii di ñëw même heure même fréquence beneen thème ak beneen invité